ñu liggéey man dofuma de ndax liggéeykat laa su fi ñëwoon naan naxee mbaay ah. kenn du ma gis ndax man kenn musuma gis mu sol day ci seen politique waaye kii li mu yóotu da am par force kii li mu yóotu da am ndax ñun ki ñu yaakaar ñaan nañ ko ko te ko ko may ndax dafa ñëw di defar ñëwul di yàq ak Serigne Touba daa ñëw di defar ci gox bi ñëw di jàppale xale yi fii xale yëpp am métier daf man formation dama def formation mais li ma ñàkk ci xaalis sama yaay xam na ko moom mu jël ko fayal ko xale yi ci gratuitement ñooñu di ko jàng man ma fay ay junni yu bëri ci àll bi tey xale yi li am su ko amoon damay sant mais xale yi nag nañu dolli góorgóorlu te jàppale ko wax ji nga wax doy na mais jëf moo am solo lim leen lebal nii nañu gore ba nañ ko ko fay ndax xale yi gore ba lim leen lebal ku ci ne sa waajur waroon na dindi xaalis fayal la fayalu la tey jii moom mu def ko ci doolay boppam kon xale yi nañu am jot te xam ne kii bu ko kenn piis nañ ko di wax ko ci kaw dem kenn du ko téye sooba yàlla daraluma kenn moom laa dem toog ko ci doo ko ñaan lu ma liggéeyal na ko suñ tubaab même bu dee bant sax yëkkatil na ko. macha allah yëkkatil na ko fa feeñ.